Euh, ñu génneel ko album déclic yaa ngi nettali sànq laata euh, réseaux sociaux yeeg digital beeg téléphone portable yi bu njëkkoon boo demee ci kër euh, gan gi gën màgg dañuy génneel album bi ñu nit am nañu album déclic avec la complicité des équipes derrière dañu leen di dañu lay tegal album bi nga commenter quelques photos et puis bu ngeen ñu mënee dimbali Pape Samba ci ginnaaw ñu nit ñu gis ko ci plateau bi on démarre avec la première photo voilà merci. Hmm. lan ngay commenter ci euh, photo bi. photo bi. Hmm. ku ci digg bi mooy sama maam bi ma la doon wax noonu. sama maam Yaxuta ay dara ah. bi nga xam ne maa lay wax ne soxna la woon ci Cheikh Ibrahima Niass. Hmm. ba pare nekkoon femme boo xam ne vraiment c'était c'est bu ñuy wax femme forte wala femme modèle. vraiment euh, doon na ko yar ma. jàngal ma euh, àdduna mais jàngal nangu ma dëgal dëgal ma daara ci lu teel. dugal ma ci école aussi ba pare suivre ma. Mhm. ba pare encadré ma nekk shérif aussi mhm. ma ànd ak ñaanam saa su ma fu ma mënti di toll lu ma mun a doon ak lu ma mënti di nekk ci karam laa ko mun a amee. ndax ci moom moom te ci moom laay delluwaat tamit aussi parce que mooy suma euh, voilà sama lépp la. voilà nit da ngay am base euh, à vous entendre ba tey on se rend compte nga ci yar. Mhm. ak ci ñi nga xamante ni ñoom c'est une vieille photo c'est ñu ñëwaat ci beneen photo. moom la ba tey sama maam la yéen waa. Chérif la c'est normal. Chérif la pire. Euh, nag kii xamu ko. ci su ngeen bëggee def beneen émission spéciale parce que bëgguma di wax sama bopp wala. Mm-hmm. mais am na ñu ma ci gën daf daan dimbali nit ñi bu ñu la falee maire naa la defal euh, hommage wëndeelu. <laughs> <laughs> spécial da doon dimbali nit ñi parce que temps yii ci ginnaaw dama dem Kaolack dem ci ay villages yoo xam ne dama ko doon dégg rek. Mm-hmm. ku pëj xam nga ay caameen ay et cetera sama maam ku feebaraan mu jël indi faj suñu kër du daan mos a désemplir mm. toujours mu ngi fees dell xam nga te bu nit ñi ñëwee ñooy lekk ba pare ñu lekk xooñ bi mm-hmm. ñi nga xam ne ay doom yi ñu ko doon dénk pour mu yor leen ci kër gi ñoom la daan njëkk jox ñu lekk mm. avant ñu ñuy lekk bu gan ñëwee gan gi mooy lekk ñun ñu dem lekk xooñ bi mu ne lépp mën na te fekk na ñun la doon wan adduna xam nga faj na baadoolu faj na borom li mu doon dafa demoon ba nekk pharmacie ambulante mm. toujours mu yor ay garab di dem ci àll bi ci village environnant yi di leen may di leen jox garab ku ci feebar surtout jigéen ñi mu jël indile am na benn photo boo xam ne su leen ko wanoon mi ngi nekk seen biir donc da koy xàmmee ci biir benn ay ñu ngi téye seen cours ñu ngi téye seen truc elle passait son temps à côté mm. ñi nga xam ne mënuñu di leen jàppale di leen dimbali di leen góorgóorlu et ci mosuma gis nit ku amee sutura ni moom xam nga sutura ci boppam am caractère am fermeté moom nga jël ko ci yenn combat am ouverture am mm. ouverture d'esprit bu doy waar nee naa la bi ñu nekkee xale léegi laa ci rendre compte ne sama moo doon déglu BBC. Mhm. teg ci biir néegam photo Gandhi. Mhm. xam nga ak Indira Gandhi. cette ouverture là aussi m'a fait aimer le savoir très très tôt. Mhm. mu nekkoon fa grande intellectuelle polyglotte bu doon nangu aussi combat wu femme yi parce que daanaka wax toujours ne texte yu bëri ci àdduna bi. góor ñi ñoo ko bind. <laughs> bu ko jigéen ñi bindoon dañ leen jox beneen. <laughs> dañ leen jox beneen beneen beneen beneen beneen beneen beneen beneen beneen beneen beneen sama gars yi la <laughs> respect xale yi am fit ñii mm. mooy waa kër gi Thiat mm. Kilifa Aliou ma Fumala mm. Simon ñii nag yàlla dafa def ma jugee noru ñoom Kaolack donc ñoom comme li ñuy wax bu ñuy ñëw dañu autostop tu vois ñun waa kaw la ñu tu mais toute cette génération là ce groupe là à travers ces images là euh, ñii nga ñii man lañ xam nga parce que ci ngëm-ngëm particulièrement Thiat je veux toujours le rendre hommage. Mm-hmm. parce que ce garçon a un cœur magnifique. contrairement ak image bu nit ñi di gis nii. Mm-hmm. ñu foog ne nit ku dëgër la ku il a un grand cœur. Mm-hmm. xol bi dara nekk ci. Ah ah te dafa hypersensible. Ah ba mënut a xool mënul def nit lu bon Thiat. vraiment c'est un garçon magnifique que j'ai eu le privilège vraiment le privilège de côtoyer. et de mener des combats avec lui. et juste bro reste comme toi comme tu eppi puis dem nañu ba yaayam suma plus comme sama yaay la. Mm-hmm. tu vois moom tamit mu jàppee ko noonu. Mm-hmm. vraiment respect ak tout ce groupe. macha allah ndi Keekandoo kii suma rakk la. dernière photo. Mm-hmm. Alioune Sané suma rakk la. parce que euh, nee naa la ci école journalisme la ñu xamante mu takk ma nag. vraiment rakk la ci man daf ma takk très tôt xam nga la ba ñu mujjee dëkk. ba ñu dem ba mu tuddee ma taaw ba mu tuddee ma doomam. Ah xam nga mu am doom tuddee ma ko muy Fadel Sané ma kooku petit Fadel. tu vois mais du moom rek am na aussi yeneen yaa naa maris ku mel ni Cheikhou Camara Cheikhou tuddee na ma doom doom ji gaañu mu tuddeewaat ma doom. doom ji gaañu. waaw daal dafa tudd doom xale bi dem ba un an et quelques gaañu. moom jabar ji amaan doom bu mu tuddee ma ko xam kooku mm-hmm. desalu ma dara mm-hmm. tu loolu laa seq ak ñi nga xam ne laa doon liggéey tu kilifa moom c'est kilifa suma comme son nom l'indique mm-hmm. et on a des relations magnifiques c'est un gars aussi boo ngeen ko gisee muy xëbar xëbar comme li ma wax si caat c'est pareil il a un grand cœur baax la vraiment seq ak ñoom jàmm depuis qu'on a commencé ñu liggéey ci Y'en a marre ak beaucoup de respect mm-hmm. c'est surtout ça muy Simon muy Fou Malade d'ailleurs Fou Malade toujours dafay seen plateau yi mm-hmm. li ñu séq c'est une relation de mm-hmm. ak Y'en a marre yëpp nekk naa ak ñoom pendant presque huit ans xam nga la am na ñu muy ci jotee ak léeg-léeg léeg-léeg sama grand Guèye Bargny xam nga léeg-léeg mu ñëw bousculé ma léeg-léeg nga gis benn xale bu ñëw bëgguma truc et cetera mais tout est dans le respect il y a eu de fortes contradictions entre nous de très fortes mais il y a eu de grands consensus pour aller vers l'avant et ils m'ont fait confiance surtout parce que booy diriger mouvement bu mel ni Y'en nga mel ni man nga xam ne tu es tout le temps en doute sur tout nga xam ne dañuy décider benn affaire ba au dernier moment nga foog ne lii gënut am na li ko gën nga ñëw ne leen gars yi lii lii ko gën ñu nangu ci ànd ak yow. Mm-hmm. loolu c'est de la confiance ils m'ont fait confiance tout le temps que j'étais avec eux et que Y'en a marre est un mouvement et rester fort et surtout rester équidistant de toute chapelle politique mais surtout garder ses valeurs ses valeurs c'est de la démocratie ses valeurs de l'ouverture parce que souvent damay gis ci bëri na surtout léegi ci réseaux sociaux yi ñoo xam ne démocratie bu ñuy défendre ñoom bu jotee ba ñu war ko appliquer dañuy réer yàlla bu mu dal Y'en xam nga nañu rester ci seen scotché ci seen principe yooyu parce que moo tax ñu fort li tax nga foor nag boo ko bàyyee da ngay fenn. en tant que leader ci euh, mouvement bi di jàmmi Kaolack quel sera le message à l'endroit des Kaolackois xam nga li ma bëgg a wax Kaolackois yi mooy que moom laay wax sama bopp nañu tàmbali. Mm-hmm. bu ñu xaar tàmbali bi nag mooy ñu naatal suñu gox-goxaat yi ku ci nekk fa nga nekk li nga mën def ko dajaloo leen seen quartier bu fekkee ne nit dafay wax wax bu dee mais élection mairie dafa jot. fexe leen ba yéen ngeen tànnal seen bopp ñu leen di représenté ci conseil ba ça c' est votre choix avant que yeneen quartier yi di leen choisir maire mun ngeen choisir yéen au moins kan moo la ñu nekkal ci quartier mais loolu dafay supposé ginnaaw bu ñu naatalee gox bi nag nañu bindu ci nañu bindu ci liste électorale yi maintenant chacun le quoi peut faire quelque chose mais il a quelque chose a dire et dire quelque chose c'est dire comment cette ville marche est-ce que d'accord na ci wala d'accord ci naka la Mariama Sarr yoree ñamu ànd ak ak équipe am ak régime Macky Sall bi nan la ñu yoree Kaolack ànd nga ceeg àndoo ci boo ci bëggee wax àddu ñu dégg la util carte électeur c'est extrêmement important bindul et puis c'est un droit civique nga ko war a def nga am ko nañu organiser wu te méthodique ci quartier yi ndànk-ndànk xëccoowuñu xeexuñu xiiroowuñu ŋaayoowuñu joteewuñu ak kenn chaque Kaolack quoi potentiel lañ fa gis ak potentialité pour transformer Kaolack et non pas des adversaires ak seen coowal politique yooyu taxuñu jóg Kaolack dafa war a jag dañ ko jagal yenn comportement yi ci politique dafa war a xewwi nit ñëw jógee fële rek jox la xaalis yóbbaale dafa war a xewi dañ ko xewil waaye. comme ça ñu ubbi beneen possibilité Kaolack dama bëgg mu nekk un Kaolack des possibilités dama bëgg mu nekk le berceau du futur sénégalais xam nga benn berceau boo xam ne mun na nekk futuru Sénégal parce que kaw Kaolack taxawaay boobu la mu a taxaw parce que bu ñu fàtte aussi ne dëkku Cheikh al Islam la ak dëkk Serigne c' est extrêmement important te ngees dafa am ay modèles yu bëree bëri lu mu wane Kaolack à partir de Kossy bu juddoo ko juddoo juddoo diggante Taïba Niassène ak lew Léona Niassène mu créé Medina Baye ci moyen d' un siècle Medina Kaolack Medina rayonné à travers le monde loolu dafa war a nekk exemplarité bu Kaolack mun a incarné pour que cette ville de la ville de la CEDEAO soxlawul décret soxlawul arrêté mais suñu comportement la suñu jikko la naka lañ koy defee parce que nag bu fekkee ne sa ëwalu Kaolack la sa aaxiru Kaolack la maanaam fa nga juddoo te xëy na fa lañ lay suul da ngay fexe ba mu jag dafa am benn wuykat bu nekk Kaolack benn grand bu neex nii bu ñuy woowee euh, grand Yafa si suma juuma ci tur bi daf naan Kaolack ci ñun ñaasu kanam la sël mu taxul mu dëj mm-hmm. du maquillage am na ñoo xam ne dañuy ñëw tey maquillé wu Kaolack bu ñu sël moom mu dëj mm-hmm. mais ñun Kaolack suñu ñaas la ñaasu kanam la sël taxul mu dëj donc nañ ko defaral mm-hmm. na jag te mun na jag nañu bàyyi que ce soit les Kaolackois de la diaspora ici à Dakar et partout dans le pays que ce soit qu'ils soient à l'étranger Kaolack bi ñu bëgg Kaolack bi ñu xamoon Kaolack bi nga xam ne moo taxoon ñu avoir de quoi être fier c'est possible mun na nekk mais nañu naatal te bindu li ci des yàlla dina ko mottal